الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال سبحانه وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى فهذه خطبة تذكيرية مادتها معروفة لكننا عباد الله ننشغل فننسى فنحتاج إلى محطات نقف فيها مع أنفسنا فأذكر نفسي المقصر أولا ثم أذكركم عباد الله قال جل وعلا في محكم التنزيل واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te mu sëgg ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi fàttali sunu bopp di leen fàttali ci xew-xew boo xam ne moo ngi sunu kanam waaye borom bi subhaanahu wa taala dina ci feeñal yërmandeem ñoo ngi fàttali sunu bopp ci gàttañlu di leen fàttali aaya bi borom bi wax ne ëllëg yowmal qiyaam mu ne aji woote dina woote ci barab bu jege bis bu ngeen déggee xaac gi te mu nekk woote dëgg xaacug dëgg borom bi nee na keroog ku nekkoon ci biir bàmmeel yi di nga génn yawma yasma'uuna sayhata bilhaq wala yawma yunaadi almunaadi min makaanin qarib bis bu aji woote taxaw di woote ci barab bu jege bis bi nga xam ne yàlla mu ngi koy yox yonent bi alayhi salaatu wassalaam yawma yunaadi biha munaadina bés bi nga xam ne aji woote dina taxaw woote sama woote kat man yàlla mooy taxaw di woote min mawdiin qarib ci barab bu jege wa zukira annahu yunaadi biha min saxratin baytil maqdis boroom xam-xam bi ñuy firi aaya bi ñu ne waa jooju taxaw di woote ab malaaka la ca baytul maqdis ca Palestine ci ab montagne bu tiim jàkka ji ci la malaaka bi taxaw daal di sakk ñaari noppam daa di ne ee yéen yax yu fanax yi ayuhal izaam albaaliya wal awsaal almuqattaa inna allaha yaamurukunna an tajtamicna limaza li fasli alqada li yowmi alxisaab yowmu aljaza ab malaaka mooy woote ne eeyeen yax yu fanax yi kawar yu tasaaroo yi yàpp yu ñoppatiku yu jóg leen ku nekk rek fi nga tëddoon ci sa biir bàmmeel nga ni bërëb daa di génn waaw lu xew tey yàlla mu ne tey dama leen di àtte tey dama leen di régler dama leen di fay mbokk yi ci place boobu nga xam ne ñëpp dekke nañ ñëpp a ngi taxaw ci kanamu buur bi tabaraka wa taala amu ci kenn kuy sol yére ñëpp a nga ne dum ñëpp a nga tiit njàqaree ngi am abdullahi ibnu amr nee na ci la ñuy jekki-jekki rek yusaahu bi rajulin min ummati ala ruusi alxalaa'iqa yowma alqiyaam ñu jekki-jekki rek dégg benn malaaka daal di yuuxu daal ne diw taxawal ci kanamu yàlla yow la ñuy njëkk a àtte waa ji fu mu taxaw rek yonent bi nee na fa yunsaru lahu tisatun wa tisina sijilan tisatun wa tisuuna sijilan fi mu taxaw rek ñu daal di koy indil 99 registre juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent kayiti jëfam lim doon def lépp ñu teewal ko mbokk jullit yi xam ngeen registre bu nekk nan la toll maddal basar waa ji su xoolee ay bëtam ba fu mu yem noonu la fooy jëfam yi toll fi ñu ko daan bindal ay jëfam yu baax ak yu bon noonu la fooy bi guddee allahu akbar kitaabul amal alxasana wa sayia jëf yu baax ak yu bon rek yépp lañ ci bind kullu sijilin maddal basar benn bu ci nekk dafa gudd ba waa ji bu xoolee ay bëtam foofu la yem kitaabun mamduud fooy yu gudd la amaamahu yaraa mi ngi ci kanam waa ji lépp la teg bët miqdaaruhu yasilu ilayhi basarahu guddaayu fooy yi fu bëtam yem ci xool su xoolee ci kanamam foofu la fooy bi yem wa hada dalil ayuha al ahbab ala kabari ala kibari hajmu sikil loolu day wane nekk kon malaaka yi jëf yi ñuy bindal ci këyit yi gudd luñ koy bind borom bi tabaraka wa taala ne ko hal tunkiru ala hada shay ndax lii da nga ciy weddi dara allahu akbar yow lii tey sa kanam ndax am nga loo ciy weddi ah sunu borom mooy buur bu baax de munoon na ñëw rek ne ko yi lii yaa ko def acca bismillah jëf ju baax la mu ne ko dugal aljanna jëf ju bon la mu ne ko safaraa ngi nii waaye xoolal borom bi ci maandu teem huwa al aadil mu ne ko ndax lii yaa ko def koy laaj allahu akbar hal tunkiru haza shay ndax xam nga loo ci weddi fa yaqulu ya rab allahu akbar laa sama borom lii weddiwu ma ci dara lépp maa ko def lépp maa ko def aw ma lu ma ci weddi fa yaqulu borom bi na ko ba tey azalamaka kataba ci alxaafizu ndax malaaka yooyu ma la booleeloon ñu tudd raqib ak atid kii ndeyjoor kii càmmoñ booy dox kii ci kanam kii ci ginnaaw boo tëddee kii ci bopp bi kii ci tànk yi ndax dañ laa tooñ ba bindal la loo warta loo deful kiraaman kaatibiin yaalamuuna ma tafaluun borom bi ne maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ñaar ñooñu ñoo lay garde allahu akbar ndax ñoom dañ laa tooñ fa yaqulu laa yàlla déedéet tooñu ñu ma de ñoom daal lu ñu bind man mi maa ko def allahu akbar waaye xam nga lu yéeme mooy waa ji daa defal lu baax dara da cee baaxut ba yàlla daal di koy laajaat ab question fa yaqulu laka fa yaqulu alaka an zalika hasana waa léegi nag ginnaaw lii reconnaître nga yaa ko def te gis nga foo yi ni ñu toll gis nga ni ñu bëree juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent la benn bu ci nekk gudd na guddaayu bët fu mu yem waa léegi nag yépp xool nañ ko amul lu baax lu ci nekk amul ndax yow maa ngi lay laaj yow doomu aadama ndax mos ngaa def lenn lu baax mu ne déedéet mosumaa def dara lu baax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah mosumaa def dara lu baax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xoolal def na ci àdduna juróom-ñaar fukki at def na fi juróom-ñetti fukki at borom bi ne ko alaka ala hada hasana waaw foo yi yëpp la ñuy bëri bëri waaw xanaa nag ndeysaan xanaa sax benn bis boobu defal nga lu baax doomu aadama ci ñàkk jomam ci ñàkk góorgóorloom ci yàccaaral ci àdduna yaafuus yambare alalu àdduna yitteel ko daraja daw lu nekk mu dugg ci waaye bàyyi yàlla tey nag mu ngi taxaw ci kanamu yàlla indil nañ ko lépp teewal ko ndax sax nag waaw yow wax dëgg yàlla xanaa sax nag waroon nga dem benn bis sax nga julli mu ne déedéet mosoo woon woor déedéet waaw xanaa mosoon ngaa saraxe sax mu ne déedéet xalaatoo sax dara dara loo musa def mu ne déedéet man kay yàlla lu bon rek laa doon def ndeysaan allahu akbar yàlla ne ko nag waaw jëgg dëgg la def lu bon rek nga doon def waaye tey moom fii kenn du fi tooñ kenn laa zulmul yawm kenn du la tooñ yàlla daal koy génneel benn feuille bu ndaw benn këyit bu tuuti ñu koy woowee albitaqa yàlla a sigil la moom lay résiste lii nag waraxa lañ koy woowee benn feuille doomu aadama bi mu gisee loolu rek mu ne waaye yow sama borom feuille bi foo ko jëmee ndax da nga bëgg a yokk da nga ma bëgg a yokkal yàlla mu ne ko déedéet fooy bi am na benn bis ci àdduna nga waxoon ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ma bindal la ko ma denc ko fii tey léegi nag dañ koy peese ak sa bàkkaar yu bëri yi mu ne yàlla yàlla yow tamit yow xam nga ne quatre-vingt-dix-neuf sigil juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ak benn fooy bu tuuti bi nga ne dañ koy peese loolu koy mooy yow ma bañ a yërëm rek yaa xam nga ni lii moo gën a bëri yow yàlla yàlla mu ne waaye waxoon naa fi kenn du fi tooñ kenn doomu aadama lu mu def rek loolu la fiy fekk comme waxoon naa lool nag te man maay buur bu maandu bu baax waxoon naa ko ci àdduna waxoon naa laa zulmul yow tey ku nekk rek li nga def laa lay fay wa an laysa lil insaani illa ma saa waxoon naa ku nekk rek li nga def fii ngay fekk ma dencal la ko léegi nag nañ ko peese ñu daal di jël fooy su ndaw soosu daal di koy teg ci benn plate ci blanche nday joor ñu jël sijir yi 99 ñu teg ko ci blaas ashhadu an la ilaha illallah daa leen di daaneel mbokk yi tur yàlla amul lu mu yem looloo nuy wanne dañu war a góorgóorlu ci lu baax ñu bañ a xeeb lenn lu bon xoolal ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah nu mu toll ñu teg ko ci blaas bi ñu jël registre yi teg ashhadu an la ilaha illallah daal leen di daaneel wa ashhadu anna muhammad rasulullah doomu aadama mu ne waaw yàlla mu ne ko gis nga mu ne waaw yàlla mu ne ko man sama tur amul lu mu tollool man awma ku ma tollool allahu akbar noonu la waajooju mbokk yi daal di texee daal di dugg aljanna noonu la waajooju rëccee te lan moo ko musal mooy ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah moo musal waaji waaji daal di dugg aljanna mbokk yi war nañu xam ne turu yàlla tabaraka wa taala amul lenn lu mu yem ci àdduna amul lenn lu mu tàllal baat boobu mooy baatu tawxiid moo tax yàlla bind asamaan moo tax yàlla bind suuf baat boobu moo tax yàlla bind aljanna moo tax yàlla bind safara baat boobu moo tax yàlla bind malaaka yi ak ginne yi ak nit yi baat boobu moo tax yàlla jox yonent yi ay jaas yi ay ngànnaay mu ne xeex leen ak képp ku bañ a wax baat bi kon ndeke war nañu góorgóorluwaat ci sunu bopp hadis bi mbokk jullit ji liñ ci jële ci ay njàng bu ci njëkk mooy bayaan fadlu kalimatu laa ilaha illa allah mooy ngëneel njëriñu baatu laa ilaha illa allah waaye bu ñu demee tey ba baat boobu sax mënatuñ ko wax wala suñ koy wax ku nekk da nga ko am sa façon sa façon ci Sénégal laa wax kuréel yi fi nekk kër gu nekk da ngaa am nooy waxee laa ilaha illallah même boo koy sikkar sax nga toog takk ay rajo dafa am noo koy waxee ku nekk rek soo déggee groupe gi ni ñu koy waxee nga xam ne ñii ñoom diw la wala ma ne baat boobu di baatu laa ilaha illallah nga xam ne ci jamono yonent jamono sahaaba yi jamono taabiin jamono taabiina taabi amul benn façon kese la mooy laa ilaha illallah tey nag ñun ci musiba bu nu dal dañoo dem ba tàqalikoo sax ci baat bi ku nekk ci ñun dafa am noo koy waxee ñi yokk ko ñi boole ci ay sant ñi boole ci ay hamzatu istifham benn kilifa mës na fekk ñu julli timis ba pare di toog xaar gee jot ay nit nekk ci jàkka di tudd yàlla xam nga loolu lu baax la waaye nag ci tudd bu ñuy tudd yàlla dañ cee yokk ñoo nga naan ala ilaha mu ne leen déet bu leen ci def hamzatu istifham bi loolu mooy ndax yàlla am na a azhabu ci arab mooy lan mooy ndax ma dem a aakulu mooy ndax ma lekk a bi day laajte moom la ñuy wax hamzatu istifham léegi nag yow nga ni a laa ilaha illa allah mooy lan mooy ndax yàlla am na nga nekk ci biir néegu yàlla naan ndax yàlla am na allah mu ne leen bu leen ko wax ñu ne ñoo tey wax leen waaye wax yuxu leen ci kaw yoo ko rajo bi yow inna lillahi wa inna ilayhi mooy réer ñàkk xam noonu ngay fekkee yeneen yeneen leneen ñeneen keroog benn waay benn jigéen ndeysaan jigéen de dafa dégg kuy yalwaan jël laa ilaha illallah yokk ci benn sant ndaw si ne alhamdulilahi rabbil alamin waa ji doon ne ko lan la mu ne ko xam naa yàlla nu mu sant mu ne ko nu mu sant mu ne yaa ko wax léegi-léegi faal yaa ko wax léegi-léegi yaa ko wax allahu akbar gis ngeen kon mbokk jurit yi laa ilaha illallah dafa am ngëneel laa ilaha illallah dafa am lu rëy lu ci yàlla def def ba waa ji gis nga ba mu ne laa ilaha illallah biñ ko tegee ci balance bi balance bi daaneel ko yonent yàlla Moussa dafa ne yenn bis yàlla xamal ma benn baat rek su ma la ñaanee rek yàlla may ma Moussa moo ne yàlla xamal ma benn baat su ma la ñaanee yàlla may ma yàlla ne ko Moussa waxal laa ilaha illallah mu ne yàlla loolu ñëpp a ngi koy wax yàlla loolu ñëpp a ngi koy wax lu ma koy doyee lu tax ma koy wax loolu ñëpp a ngi koy wax yàlla ne ko xanaa xamoo Moussa buñ jëloon asamaan yi juróom-ñaar ñu jël suuf yi juróom-ñaar ñu teg ko ci balance ñu jël laa ilaha illallah teg ko ci balance la maalat alayhinna laa ilaha illa allah moo tax waa ji ba mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah balaasam daa di daaneel juróom-ñaar fukki feuilles ak juróom-ñeent kon buñ ko doon wax bis bu nekk di ko sellal suñ ko doon wax bis bu nekk mu nekk dëgg ci ñun mu nekk tawxiid mu nekk aqida ñu xam baat bi kon mbokk yi ñun lan la ñuy am kon loolu mooy lu njëkk ñu xam baat bi dafa am ngëneel mooy fadl kalimatu la ilaha illa allah wasiqaliha ak diis bi baat bi diis baat bi dara tollowul ak moom dara attanu ko baat bi amul lu ko attan ci kaw suuf amul lenn lu ko mën a dégg loo ko natt wees na ko kon nanu góorgóorlu ñu xam baat bi niñ koy waxee waaye tey alku ginu alku sax da ngay gis ku yor kurus gu gudd waaye mun ta wax laa ilaha illallah lu muy wax laay laay lalaa laay laay lalaa suñ la joxee benn numéro téléphone waa ji ne la wooma nga yàq ci benn lettre juróom fukki junni at di nga ko woote waa ji du la wuyu lu tax parce que da nga koo yàq soo waree wax laa ilaha illa allah nga ne laay laay lalaa da ngay wax da ngay ne foofu di wax yàlla du la musa wuyu Musa alayhi salaam dafa gis kuy jaamu xërëm naan yaa sanam sanam mooy xërëm yaa sanam yaa sanam di yuuxu waa ji làmmiñ bi nu mu gaawee mu ne yaa samad asanam wa samad xam ngeen du benn yaa samad yàlla ne ko labbayka yaa abdi wuyu naa la yow sama jaam Moussa mu ne yàlla kii jaay jee jee jaamu xërëm dafa juum du yow la bëggoon woo dafa juum de tey ko yàlla mu ne yaa Moussa hal min samadin xayri Moussa maa ngi lay laaj ndax am na ko tudd samad du man maa wax qul huwa allahu ahad allahu samad Moussa ndax am na ko tudd samad mu ne déedéet kan moo ko tudd mu ne ko yow mu ne ko kon man la waaji woo moo tax ma wuyu ko man ku ma woo ma wuyu la wa ida saalaka ibaadi anni wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib ujibu daawata da bi shart mata ida daani yàlla nee na bu la jaam ñi laajee fan laa nekk nee leen damaa jege ba ku ma woo rek ma wuyu la ndeke yàlla sori wuñu lan moo tax du nu woo yàlla lu tax duñ ko ñaan ñuy woo ay bàmmeel di woo ñu ñu gisul di woo ñu dee te yàlla nee na wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmi alqiyama ila yawm yàlla nee na ki ngay woo bu fi nekkoon di dund sax te nekkandoowu leen bu fi nekkoon laa wax di dund te nekkandoowu leen ci barab mi ngi dund nekkandoowu leen mi ngi Dakar yaa ngi géejawaay nga koy woo di yuuxu da ngay sonn rek ndax dina ñëw tontu bi mooy du musa ñëw massa ku dee allah ku dee yàlla nee na boo taxawoon ci bàmmeel bi di ko yuuxu ba suba du la wuyu ndax bokkatu leen adduna boo nekk loolu moo tax nit ñi war a xam bu ñuy ñaan yàlla lañ war a ñaan kuy ñaan yàlla ngay ñaan yàlla moo nekk fépp moo mën lépp ci xam-xamam ak kattanam ak gisam ku woote yàllaa lay dégg kon yàlla nee na dee leen maa woo damaa jage bañ na ko sax ba moom yàlla dafa tas ay malaaka ci àddina malaaka yi wër ku ñu dégg ñu ne yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin yaa arhamar rahimin ñetti yoon ñu ne la ñaanal ñu may la ñetti yoon ñetti yoon soo ne yaa arhamar rahimin malaaka bi taxaw ne la boo ñaanee yàlla may la loola tax tamit yenn saa yi ñu jox la benn ñaan ñu ne la def ko junni junni yoon misaal yaa arhamar rahimin ñu jox la ko ne la def ko junni yoon loolu wóorul yaa ngi woo yàlla bur ñaan ko nga ne ko yow yàlla mu ne ah yow yàlla mu ne ah yow yàlla mu ne ah nga nekk fanaan yow yàlla yow yàlla yow yàlla boo ko defoon nit sax mu dem bala danaa kii dafa dof woo nga nit ki ñetti yoon ne ko diw mu ne ah nga ni ko diw mu ne ah diw mu ne ah nga toog fanaan ko diw diw diw day dem yoonam kon sooy ñaan boo waxee ya allah ya allah ya allah ñaanal ya allah ya aziz ya aziz ñaanal ya razaq ya razaq ya razaq ñaanal ya latif ya latif ya latif ñetti yoon ñaanal wane ya arhamar rahimin ñetti yoon malaaka bi nee na la ñaanal ñu may la allahu akbar kon nga toog fa di wax juróom-ñaar fukki junni léeg nga di ku ne yeewu ne biig ci guddi def naa soixante-dix mille ya allah amul njëriñ ndax bi ngay ñaan yow kenn dégluwu la looloo tax mbir mi duñ demee rek nu nu neexee di demee suñu xel ay texte la islam ay texte la qawaid alsharciya allati jaana biha muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله من فوائد الحديث وفيه رد على من يدعف بعض الاحاديث الاذكار لكثره الاجر الوارد فيها حديث bi bokk na liñ ciy jëlee ci ay njëriñ mooy léeg-léeg yenn taalibe yu mel ne man dana seeni àll yu soriwul dañuy bari lu ñuy daifal ay hadis yu jóge ci yonent bi naan wérul wala baaxul yonent waxu ko lu tax ndax hadis bi tiyaaba yu bari yi ci nekk hadis bi daf leen di tontu hadis bi albani sax wéral na ko boroom xam-xam yu mag yëpp wéral nañ ko kon su ñenn taxawee naan hadis bi dafa yomb waa ji deful dara dugg aljanna xanaa dañoo fàtte coobarewu almashia saharatu firawna lan lañ def ba dugg aljanna julliwuñu wooruñu joxewuñu azaka ajiwuñu màkka dañoo xëy di bokkaale yemuñ ci dañoo gàddu seeni sareet ak seeni fas ak seeni lépp loo xam ne mën naa yàpp seeni gëléem ak seeni mbaam duy ko ba mu fees dell ak njabar ñëw jàkkaarloog yonent yàlla Muusa ba xam ne kii la ñuy concoural ñu ñëw ci Firawna ne ko loo wax ne damaa bëgg ngeen concours ak waa ji bu ngeen ko gañee ma fay leen ñoom sax ñoo ko laaj a inna lana la aj in kunna nahnu alghalibin ndax buñ ko gañee dañ ñu fay mu ne naam loo ñuy fay mu ne innakum la min almuqarrabin giñ naa ci sama màggaay man Firawn su ngeen ko gañee ma def leen ay ministre wala ma def leen samay jege ñaale allahu akbar yàlla mu ne ñu ne bismillah firawna taxaw Moussa taxaw njabarkat yi taxaw ñu ne sànnil Moussa ne leen sànni leen yéen ba pare ñu sànni yàlla mu ne wa saharu a ayuna naas ñu njabar bëtu nit ñëpp ñëpp tiit Moussa sax bëgg tiit ci intérieur am yëg tiitaange yàlla ne ko laa taqaf bu ragal innani maakuma asma'u wa ara maa ngi ànd ak yéen bul tiit allah moo tax ku ànd ak yàlla looy ragal léeg-léeg nga dégg ay nit di xoqatalaate di tiitalaate bu ngeen booba moo xanaa déggoo xale yu góor yi lu ñuy wax ragal yab yàlla la mbokk yi lu dul yàlla loolu xale yu góor yi di wax pinton la diwal lekk dara du la lor benn waaye dafa fekk ay nen yuy teg ci biroom ay nen mu ne alhamdulilah rabbil alamin ñëw ne ana ana booy bi mu ne maa ngi nii mu ne ma tegal ma pool bi ci ci ci gaz bi mu teg mu ñëw sotti ci nen yi ubbi gaz bi ne ko bu mu nee dara waxal ak safara si nen yi ñor mu daal di lekk pare naan ndoxam ba léegi mu ngi dund nen lu mu munal gaz ay nen yi ñuy teg ci biro ay nen ñuy teg ci buntu kër moo tax ñi xëy di toj nen ñi dañuy yàq rek nen ñi dajale ko ngay indil ko nit mu lekk moo gën mu ndékki nga am tiyaaba waaye xëy jàpp palaatu neen tëmbal ko am na suñu benn kilifa mu ngi ci jumaa ji toog mas na fekk tabletu neen ci buntu géej ci géej tablette laa wax waxuma benn neen de tablette ak guro mu daal di koy buub yóbbu guro gi raxas ba mu set bis bu nekk mu jël benn nen yi mu ndékkee ko mu ngi ci jumaa ji mi ngi toog jàkkaarloog man di ma xool mu njëkkee neen yëpp boobaak léegi mën na fukki at ak wala fukki at ak juróom mu ngi fi ba léegi xool ku jël tablette net amoo loo koy def lu dul dem di ko teg ci géej nga bàyyi fi julli di xiif nga koy teg ci géej doo ko jox nit ñi ñu ndekkee ko moo tax ku dof ku jaamul yàlla rek da ngay dof dof dof ngay def dof tey saa yi nga gis kuñ ne sarax bi boo koy génne doo sol tubéy magum jëmm kilifa nga def yaramu neen dem ci mbedd naan da ngay def yaramu neen moo tax ku topp njabarkat yi léegi nga dof dañ lay dofloo parce que ñoom ay dof lañ ay ginne lañ àndal dañ lay jógloo xaaju guddi ne la da ngay dem ba ci sëlëbe yoon nga simmeeku dum waaw mu simmee ko tey fekk nit ñi ne la yow loo fi def la wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk yi njabarkat yooyu bi ñu sànnee njabar ba su nit ñi ñun ñëpp tiit Moussa tiit yàlla ne ko bul tiit sànnil li nga yor sa loxo ndey joor waalqi maa fi yaminik sànnil mu sànni mu daal di wan li njabarkat yëpp indi woon njabarkat yi xam nañ njabar bi Moussa sànnee wan li ñu indi woon yëpp yàlla mu ne wa waqa as-saharatu sujjadan ñoom ñoom ñu daal di këpp ci kanam Moussa daan ne amanna bi rabbi Moussa wa Haarun daa ne leen ya te ngeen di gëm te joxuma leen ndigal gaa yi ne ko ngëm yàlla kenn du ci laaj ndigal wala saa ngeen jigéen bu ne damaa bëgg a muuru waaye sama jëkkër nee na gëmoo gëmoo damaa bëgg a julli mais sunu patron nee na fii kenn du fi julli gëmoo tëf patron sa patron ak yàlla kan moo gën a nekk patron da ngay takkale yàlla ak nit bëgg nañ julli mais fii xam nga suñ fi jullee alal nga bëgg rek toogal bañal julli ba nga dee dajeeg yàlla julli dina jot nit naan damaa bëgg a julli waaye dañ ma fee tere julli damaa bëgg a def li waaye waaye dañu ragal yàlla njabarkat yi ba leen firaaw na ne da ngeen di gëm te joxuma leen ndigal ñu ne ko ngëm kenn du ci laaj ndigal gis nañ dëgg juub nañ mu ne laa yéen kii mooy seen kilifa innahu la kabirukum allazi allamakum sahra kii mooy seen kilifa gi leen jàngal njabar waaye di ngeen xam danaa leen rey wala usallibannakum fii ñu jàng naa bu xam nañ fii boobu lu muy teg danaa leen yeew ba mel ne ku leen di dugal ci garabu tàndarma yi ndax yeew bu dëgër waaye wala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min xilaaf danaa dagg loxo ndey jooreeg loxo tànk yi def ko compte gaa yi ne ko faqdi ma anta qaad innama taqdi hazihi lxayaati dunia defal li nga bëgg a def adduna rek nga mën adduna alaxira ñoo ñëw ñoo fa yem te sax ñu ngi lay yëgal yow firawna mu ne ah ñu ne ko sunu imaan munoo ci dara yaram yi rek nga mën a lor waaye imaan yi munoo ci dara imaan yi dem nañ allah loolu mooy diine mu ragal yàlla mbokk yi ngëm yàlla kenn du ci laaj ndigal bokk na ci li ñuy jëlee ci hadis bi mooy bayaanu fadlu man maata ala tawxid képp ku dee ci tawxid am nga ngëneel gu rëy rëy rëy ku dee ci tawxid loolu bokk na ci li ñuy jàng ci hadis bi wa annahu axbara taala inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha ku dee ci tawxid mbokk yi dee nga ci ngëneel loolu dañ koy jàng ci hadis bi dañ ciy jàng bayaan fazaatu shirk xaysu inna kalimatu la ilaha illa allah ala siqaliha قد نقضها قد نقضها المشركون فصار الشرك بالله أثقل منها فلم تنفع قائلها بقال بقي بقال مصيبة لا إله إلا الله دي ديس لب سدجك بقال بقال دانلكو إذن لا إله إلا نمتول سنت بقال بدي واجه إنجين ديس يالله بالكو دا بقال ول ndax yàlla leen ku bokkaale du ma la baal ndax bokkaale loo ko teg rek ëpp na ko moo tax yàlla mu ne innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna ku bokkaale rek araamal naa ci yow aljanna kon nuñ moytu bokkaale te yonent bi nee na bokkaale ashirku axfa min dabibi nawm la yonent bi nee na bokkaale dafa sew ba mel ne tànki xorondom tànki xorondom mooy mbelentaan mu ñuul moomu mu nekk ci xeer wu ñuul ci lëndëmu guddi ñu ne la xoolal tànk yi ndax di nga ko gis doo ko gis ñeenteel mooy bayaanu siatu rahmatillah yërmande yàlla ni mu yaatoo azza wa jal sabaqat rahmatuhu gadabuhu yàlla yërmandeem moo jiitu meram bandiraaɓe musidɓe fulɓe hadis mon mi yewtanno ko hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo abdoulahi ibnu amri yewtani en o wi janngo yawma alqiyamati so noddowo o noddi o wi o ehe mon ƴiye ubbanoɗo e leydi ha ñori ɓalli cekiɗi sukkundu sarindu ngumme ndente jommon noddi o wi kala ɗo ƴiyal wonno e nder leydi ina ubba seŋotoye tew mum sukunu ndu seŋo hen on ummo o wi so ummima o dari o yeeso allah yusahu alayhi wulle makko wiye e an kaari daro yeeso allah o daro so darima kayitaji makko ɗewo liggotoɗode nde o woni aga aduna golle ɗe wo gollotonoɗe koɗen allahu subhanahu wa taala addata yeeso makko nde ɓe limi kayitaji ɗi ɓe tawi ko capanɗe jeenayi e jeenayi kayit wona gotel de capanɗe jeenayi e jeenayi kayit ari e yeeso makko kayit hen foof ina juuti ha guite makko ɗo haaɗi ko ɗon kayi ɗo haaɗi allah wimomi ɗum ɗo ko an golli foof o wi komin golli o yeddani allah wimo beela malaikaji gonnodi e sarama denonnoɗoma ɗi malaikaji ɗi koɗi toñɗoma o wi ala malaikaji ɗi toñani kam ɗum fof komin golli allah wima beela golli hen ko moƴƴi e nder kayitaji he o wi wallahi mi gollani min kay gawonnomi ga aduna mi talano allah gonnomi koye yiilade jawdi gonnomi koye dogde ga aduna tan kala ɗo nanmi so neɗɗo o ko neɗɗo waɗi daña dawdi ko ɗum waɗannomi gonnomi koye fijde allah wima ɗon joni hay moƴƴere a meeɗa wadde o wi ala mi meeɗa wadde allah wimo hande noon hay goto toñata ɗo hay goto saabu mi wino ga aduna la zulmul yawma ɗo hay goto toñata ɗo neɗɗo allah yaltini kayitel tukosel tan o yi kayiɗo o wi e allah ko wattani kayiɗɗo jalde dow capanɗe jeenayi kayit e jeenayi ala ko nafi ɗum fof ko bakkatuji adda ngel ɗo kayitel tugosel allah yima kono ko an golluno moftan mami a finino ñalawma wiɗa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah windan mami ɗum e ngel ɗo kayitel moftan mami joni noon hande peesete kala hen ɓurguel tan ko toon faɗa o wi allah an ka yiɗa kam yafade sa yiɗino kam yafade a ƴettata ngel ɗo kayitel aɗa wadda ɗum e ɗiɗo kayitaji kewɗi allah yima kono yo peese ko an golli allahu akbar nde kayitaji ɗiɗiɗi fowa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadou rasulullah yandini kayitaji capanɗe jeenayi e jeenayi ɗi allahu akbar holko fameten hen inde allah ala ko wawi waddede inde allah ala ko wawi nawrede kala ko nawruɗa allah a perti kala mo coduɗa allah a waasi sabu on ma ya allah heddo ɗum ma ya allah heddo allahu akbar allahuma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله